alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ziyaara bu tedd te di leen ci bis bu tedd bi ak ci waxtu bu tedd bi ak ci barab tedd bi ñu nekk di leen ñaanal jàmm ak tawfiq di ñaana dolli suñuy ñaan di tàllal suñuy loxo sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal fi suñu kilifa gu tedd gi lool te may ko tawfiq ak jàmm ba mu eggale liggéey bi nga xam ne sémbal na ko diine sémbal na ko yoon wi te ñu ànd ko ak moom xam na ne ñi ngi ci waajtaayu seenu gan gu tedd gi nga xam ne moom mooy bëgg a ñëw muy shahru ramadan mubarak ajuma ji weesu ci waxtaan yi ñu doon def jotoon nañoo wax yi nga xam ne ñoom lañu war a waajalee weer wi buy door a ñëw ndax bu ñëwee ci Shahban te Ramadan moo ciy topp kon waajtaay wu am solo lañ ko war a waajal ni nga xamee ne kuy am gan goo fonk buy buy bëgg a ñëw danga waajal sa bopp waajal sa kër waajal sa njaboot noonu lañ waaja war a tam waxtaan bi waxoon nañ ci sëñ Saam waxoon na eh, yu bari yoo xam ne war nañ caa jublu ngir waajale ko wu tedd wii bokk na ca yooya muy tuubal sunu borom tabaraka wa taala ndax tuub mooy raxas ab xol raxas ko ba mu set wecc muy ndab lu set loo xam ne bu ramadaan ñëwee xéewal yow indi da nga am foo ko def fu set foo xam ne da dana mën a jariñ dana mën a jariñe kon tuub lañ war a jëkk jëkke ci ñi ñuy waajalee weer wi tuub gu sell ci suñu diggante ak suñu boroom ak suñu diggante ak suñuy moroom gannaaw ko tuub ga mu waxoon nit ñu jéema nag fay lépp loo xam ne amoon nañ ko ci ay bor yoo xam ne ci ramadaan la jóge woon ay ngant taxoon ñu faatoon ko ñu jéem a am pëseef fay loola ngir jamono ji xat na lool saa bu Saabaan ñëwee rek fay moom day daal di nekk loo xam ne day taxaw loo ca sàgganee rek mu daal day yóbbu ci beneen ramadaan ñëw loola nag ay daan da cay war ak ay bakaar kon fay bor yi nga xam ne amoon nga ko moo xam góor la moo xam jigéen la fay loola day daal nekk warugar fi mu ne ci weeru ramadaan weeru chambaan beneen bayit yi ñu koy waajale mooy di bari looy woor nag boo muti borit nga bari looy woor ci chambaan lu baree baree bari ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ ko gis muy woor ci ramadaan lu bari muy woor ci Chaabaan lu bari ay bis yu bari yoo xam ne daawu ko woor ci yeneen weer yi dul moom saa bu ñëwee daana woor ci Chaabaan lu bari loo xam ne daawu ko woor ci yeneen eh, weer yi nga xam ne du du du du du bañ ko ko laajee mu ne dafa nekk diggante rajab bi nga xam ne ñëpp dañ koy fonk di ci def ay jaamu yàlla ak ramadan bi nga xam ne moom mooy mm, yëf yi moom daa nekk seen diggante bu ko defee nit ñi li ci ëpp dañ koy sàggane di di dañ ko sàggane ci ci ci ci waaj waajtaay bu ko waajal ci nag ci woor woor yu bari ngir tamal ko sa bopp ak waajale ko ramadaan loolu moom it bokk na ci li ñu war a bokk na ca it ah, yeesal sunu yéene gën a daasaat sunu yéene bu baax fas yéene woor weer wi yépp am yéene ju rafet ca loola loolu la muy jariñ mooy bu yàlla dogaloon tey nga fas yéene joojee te yàlla dogal ci dogalam nga am ngant wala nga xam walla yàlla dogal fekke woo ko sax far waaw yàlla ko fekke ñun ñëpp yàlla dogal nga façon koo woor te fekke woo ko yoolu koor ga da lay daal di topp da ngay daal di am yoolu koor googu ndax fas-fas boobee nga amoon ngi ngir fas yéene koo woor yooyu yëpp yu ñuy waajale weer wi la ngir tedd gum tedd ak rëy gum rëy ah, ci loolu rek lañuy la ñuy continuer ci wàccaay wi tam mu bokk ca lu am solo loo xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel ndax day doon loo xam ne day mel dañ koo tàmm rek en daal daal joo xam ne bu ñëwee ñu defee ne rek xam nañ ko wala mën nañ ko mooy attey koor koor koor atte ya nga xam ne moom la soxla xam lu ko ba xam ko ba nga xam ne da nga mën a wooru koor gu wér gu yàlla nangu loolu it daa nekk loo xam ne farata la ci chaban bii ñu nekk wala lu jut chaban sax nga xam lu say attey koor yépp la ca aju la koy defar la koy yàq la ko lañ ca sib lépp nga xam lu ko xam lu goo xam ne dana leer ci yow lool dikkee nga mën ko defee nañ la ko sante ndax koor jaamu yàlla la te jaamu yàlla yépp moom xam-xam moo ko jiitu xam-xam moo ko jiitu genn jaamu yàlla goo xam ne nit ki daf koy def ca na ko neexee rek wala lam ko gisee waaye daf koy teg ci xam-xam ba nga xam ne moom la charia digle ne noonu lañ koy defee sëñ war radiallahu taala anhu ma ngay wax ci jawur nafis wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fii mutlaqan rabu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma ab julit wurta def lenn wala araam na ci moom mu jóg di def benn jëf boo xam ne xamul attey sunu boroom ca jëf joojee muy def moo tax mu ne bala ngaa jaamu yàlla kon jiitalal xam-xam doora teg cee jaamu yàlla ka ngir mu mën a nekk xam-xam jaamu yàlla ku ñu nangu bokk na ci nag ate yi nga xam ne moom nit ki da ko war a xam ci koor jëkk ñuy woor mooy mu xam ne koor dafa am ay charte yoo xam ne mooy daje nit ki door koo def ay charte yoo xam ne borom xam-xam tënk nañ ko ci charte yoo xam ne mooy tax koor gi war la ku charte yi dajewut ci koor waru la ak charte yoo xam ne mooy sax boo boo waree ci yow noppi boo ko defee mu wér ak yoo xam ne ñaar yëpp la dajale waaw boo ko boo ko amul du war ci yow du wér ci ñett yooyu yëpp nag kon borom xam-xam leeral nañ ko ci yi ba mu leer naññi charte bi jëkk bi mooy charte yi nga xam ne mooy tax mu war la koor ci boppam war la yow ba nga war ko def boo ko defee am ci yool boo ko defut eh, suñu borom tabaraka wa taala mbugal la sart yooyu moom ñett rek la ba ci jëkk mooy mu nekk mu kàllaf moo xam ne jot nekk na mu kàllaf major na mu kàllaf xale bu ndaw boo xam ne mu kàllafagut koor waru ko koor waru ko am na sax ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ dañ koo sib ñu di ko woorloo wala ñu di ko ca forcé ndax loolu lu ci baree bari dañ ci sukkandiku ci julli gi nga xam ne dañoo digle ñu di ko digal gone yi ba ba leen ci lapp-lappal buñ ko deful loolu julli nu roowut ak koor ndax dara topp ci loo xam ne day lor xale bi wala daf koy daf koy gaañ ci ci ci ci ci ci euh, wàllu dundam koor rek dafa nekk loo xam ne daa metti lool te am na ay jeexit yu muy am ci moom yoo xam ne su ko defee mën na koo indil ay gàllankoor kon gone gu ndaw gu majeuragut koor waru ko ndax amagul kattan googa ba euh, ñu war ko ko defloo ba ca des mooy kattan il faut nga am kattanu koor am capacité boo xam ne danga nga mën a woor te du la wàññi dara kooku nag lañ ci julu mooy kan ki ki lottu ni ki feebar ko xam ne da ngaa feebar feebar boo xam ne day yokk koor gi da koy yokk daf koy indi da lay indil feebar boo wooree wala feebar ba nga feebar da koy yokku kooku moom moom it koor waru ko woor am na ñoo xam ne nag loolu mel noonu daf leen di dal ñu jéem a xëy na sàmm wala ñu dugal seen bopp ci loo xam ne ay fit na leen di jural ak ay ngaañ yoo xam ne laatul wala tulqu bi aydikum lu ko ca lay dugg bu leen sànni seen bopp ci alkande lépp loo xam ne sunu borom digal na la ko boo demee ba lott ca loola waxuñ la nga eh, teg sa bopp loo xam ne day da lay indil ay ay gaañ yoo xam ne eh, du loolu war naka noonu tam nit kuy nàmpal wala muy muy muy mu tollu diggante ci jigéen bu tollee diggante Eh, wala muy nàmpal kooku it koor waru ko koor waru ko bu fekkee ragal na bu wooree mu wàññi ko dara moom wala lim yor lim denc bu wooree loolu dana ko wàññi dara moom it koor waru ko koor waru ko bu ko defut du ci am benn bakkaar su ko defee nag mën naa wér waaye su ko defut nag du ci am benn bakkaar te bu fekkente ne ña nga xam ne seen xam-xam jëm na ci loola wax nañ ko ne ko waroo woor wala mënoo woor bu boobaa nag daa war waa wërta woor sax ndax ndax koor waru ko ndax sunu borom tabaaraka wa wax na wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci euh, ci hadis ne sunu borom tabaraka wa taala sippi na wàcce na koor ci ku tukki waaye wàcce na ko ak ak ak ak ak ak benn xaaj ci julli ki tukki wàcce nañ ci moom koor mën naa bañ a woor waaye ki man mën naa bañ a jul mën naa am julli yoo xam ne daf koy wàññi waaw ak kan ak ki nga xam ne dafa tollu diggante wala day nàmpal kooku moom it yàlla wàcce na ci moom koor bu ragalee ne dana ko lor wala dana lor la muy la mu àndal ak koo xam ne léegi bokk na ci ñi lottu mag mu am euh, at yu bari ba lottu lool ci koor nga xam ne bu ko defee dana ko jural ay jafe-jafe mënatu ko wala koo xam ne danga feebar feebar boo xam ne day day dafa sax maanaam duutu wér waaw ñi jabet wala ñi nga xam ne dañoo am euh, feebar yoo xam ne ñay toppatoo loolu ñoom it wax nañ ne la mënoo koo boole ak koor waxuñ ne rek ku feebar bu mel noonu dal doo woor waaye am na ci ñoo xam ne mënuñoo woor mënuñ ko boole koor feebar ba nanguwu ko bu buñ ko defee day yokk euh, feebar ba wala day tax mu yéex a wér ñooñu ñëpp it jéggal nañ leen koo xam ne moom dangaa feebar feebar bu dul wér te mënta ànd ak may nañ la nga bàyyi koor googee tey leele nag yow mag moomee nga xam ne mënta woor wala feebar kookee nga xam ne feebar bi mënta ànd ak koor te feebar bu dul wér la ñooñu ñoom dañuy bàyyi koor ba faw waaye dañuy lele ah bis bu nekk ñu leyal miskin loo xam ne moo koy mat ab kii wa ala lazina yutiqunahu fidyatun taamu miskin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 ilaha illallah أكبر الله أكبر si woo rek di delluwaat kon koor warul nit ku tukki tukki boo xam ne tukki bu ñuy wàññee julli la te doon tukki boo xam ne tukki bu dagan la ñaar sart yooyu rek bu dajee ci ko ci tukki koor waratul kookee nga xam ne mooy mooy moom la loolu dal mooy tukki bu ñee nag waru ko nag mën na koo def waaye bu ko defoo nit bu ko defutoo nit du ci am benn bakaar waaye mën na koo def nag bu ko bu ko defee it wér na nag koor ga wér na waaye bu ko defuti du ci am benn bakar kon ñett sart yooyu mooy sart yi nga xam ne mooy tax koor war nit mooy mu nekk mu kàllaf am kattan goo xam ne mën naa woor am saxwaay boo xam ne fa mu nekk tukkiwu fa euh, jaaru fa di jàll yi nga xam ne nag moom mooy tax koor gi boo la waree ba noppi rek nga def ko mu wér ci yow ba ci njëkk wala moom rek la sax mooy lislaam lislaam moom mooy doon ab jullit ab jullit moom la koor war fala yasixu min kaafir nit ku dul ab jullit koor kooram wa koor waru ko waaw koor kooram du wér kooram du donte ne koor war na ko nag kooram du wér waaye bu ko defoon it kooram du wér ku doon ab yéefar ne man kat damaa gis koor gi julli di def mu neex ma rek naa woor te julli woo te te te tuuboo nekk jullit sa koor ga du baax ndax koor balaa wér dangay nekk ab jullit donte ne koor nag war na ñi dul jullitit koor war na leen julli war na leen buñ ko bàyyi gañ ko bàyyi it yàlla leen ci mbugal ëllëg boole nag ñàkk gën ñàkk gëm yàlla ndax suñu borom tabaraka ko taala mi ngi wax ci alquran ne maa salakakum fi saqar yéefar yi lay waxal looleen leen tàbbal sawara ñu ne xaalo lam naku minal musallin dañ daawut julli nga xam ne bokk wala nañ ci leen dugal sawara mooy kon dañ daawut julli te ñoom ay yéefar lañ kon julli bokk na ci li ñuy buggali ab yéefar ëllëg bàyyi gam ko bàyyi ndax daf ko waroon te defu ko waaye bu ko defoon nit du baax ndax sartu jëf ju baax mooy mooy sartu bu jëf ju baax kon sart boobu moom mooy tax koor gi wér ci ku ne yi nga xam ne nag moom day tax koor gi wér war wala war te wér war na war na la te boo ko defee dana baax wala bu bu ñàkkee du wér ba ci jëkk mooy am xel nit ki bu ameem xel rek koor war na ko waaye bu amutum xel koor wàcc na ko bu tàggale koog am xelam ci tàggale koog moom goo xam ne yàllaa ko tàggaleeg moom muy ak wéradi wala mu tàggale xelam ci loo xam ne da ko naan wala da koo lekk wala lu mu mën a doon daal loo xam ne tàggale ko nag xelam ba amatul ak yëg kooka kooram du wér kooka koor koor utu ko warati utu ko moom moom moomee woor noonu képp koo xam ne sa taq xel tàggale ko nag yow ca waxtu wañ war a yéenee koor bu sa koor <coughs> du wér koor googu du mën a wér te bu dee dee koo xam ne it la ko tàqalee koor ga yàllaa ko ko teg mu ak wér di di di wax di wax junun ak ndof bu boobaa nag loo koor waru ko bu ko defee wérut ñaar yëpp ci am waru ko wérut ka ca tegu mooy jigéen bu setee day il faut mu set ci dereti mbërëg ak dereti wasin yooyu nga xam ne mooy gaar jigéen waaw jigéen bu ko dalee faw mu set ca loola wecc kooram door war door door koo war kooram door a wér kooku koor waru ko koor kooram it bu dëgëroon bopp ba ne dama koy def ngir ragal fay wala dara it koor ga wérut koor ga wérut waru ko wérut tam waaw waru ko wérut waaye nag lañ cey seetlu mooy ñu bari ci jigéen ñi loolu dafa leen di dal ñu defe ne buñ seetee te fajar jotagut fii ak sëngooguñ rek loolu duñ mën a woor waaye loolu du ci sart ginnaaw seet nga rek boo sëngoogul tam ak même mel ni janaba ku am janaba ci góor wala jigéen joo xam ne seet na ci dam xayd ci mërëg ak gasin loolu lépp bu sangoogul tam te fekk fajar jotagut mën naa woor ñàkk a sangooga du tee mu woor te du yàq ci koram dara ba ca des mooy waxtu wi nag waxtu wi ngay woor na doon waxtu wu ñu war a woor ramadaan dafa am tàmbule am fu mu yem am fu mu tam tàmbule am fu mu yem munoo woor ramadaan ci weneen weer wudul shahru ramadaan ci weeru ramadaan képp nga ko mën mën a woore soo soo nemoon léegi damay woor sawaal wala damay woor sul xidda te yéene ca ramadaan loolu duñ ko nangu du wër te wëru la tam loolu dama wëru la soo yonent bi sallallahu sa wa sallam nee na laa tasuumu xata tarawul hilaal wala tuftiru xata tarawul taraw bu leen woor bu ngeen gis lu bu leen woor bu ngeen ko gisee bu leen dog te gisu leen ko loolu sax aaya baa ko jëkk fa man shahida minkum shahra falyasumu koo xam ne rek fekk weeru fekk na la fi teewe nga weer wi waaw weer fekk na fi kon bu weer wi teroo boobu la ñuy woor door war boobu la koor door a wér kon loolu moom it sart la ci boo xam ne ñëpp war nañ koo xam kon ñett sart wala ñeent ñett sart yooyu muy am am xel nekk ànd ak sam xel set ci damm wala deret joo xam ne mooy mooy mooy jot jigéen wala waxtu wayu tàbbi waxtu ramadan tàbbi muy ramadan ñëw ñett sart yooyu mooy sart yi nga xam ne mooy tax koor gi war mooy tax koor gi wér mu desaat yeneen atte yoo xam ne nag yu jara itteewoo la mooy xam lan mooy farata ci koor ndax farata mooy loo xam ne ci jaamu yàlla gune saa bu ci ñàkkee rek jaamu yàlla googu taxawatul taxawul bu doon luy taxaw ñu ne taxawagul ay farata yoo xam ne ci julli ak ci woor ak ci yëpp da caa am loo xam ne soo ko deful rek ñu ne yow defagoo jaamu yàlla googee bu dee koor nag moom dafa yomb lool ñaar dong la faraid faraidu sawm ñaar dong la moom la sëñ Tuubaa di wax ci radiallahu taala anu ci sa sixaar siyaamuna lahu faridataani bila ziyadatin wala nuqsaani niyatuna wa kafuna an muftiraat li ci baaxin mutimin bi tayibaat ñaari sart ñaari ñaari farata képp la koor am mooy yéene yéene na nga dogu ci sa xol ci ci ci ci ci ci fas yéene woor ngir topp yàlla ngir topp ndigalal yàlla yàlla ndigal digli gi mu digle woor moo moom nga yéene ne fas yéene nga ko def ngir topp ndigalal yàlla yooyee te jaamoo ko yàlla ndax yéene moom mooy mooy lépp innamal amal bi niyaat jëf yëpp ci yéene yi la aju yéene jooju nag yaa ngi koy def bi jant bi sooyee ba ba fajar di jot diggante bi jant bi sooyee ba ba fajar di jot soo ci yéenee woor suba ci sa xol fas yéene ngaa woor suba boobaa yu yéene jooju moom mat na yonent bi sallallahu man lam yujmi as-siyaama qabla al-fajri fala la wala man lam yubayyit as-siyaama min al-layli fala siyaama la képp koo xam ne fanaanoo woo koor jëkk fajar fas yéene koo def suba kooka sa koor wérut kooka sa koor wérut kon dañ koy fanaanoo muy loo xam ne fas yéene nga koo def suba du lu ñuy wax ci làmmiñ nag waaye lu ñuy fas ci ab ab xol lay doon borom xam-xam yi nag wax nañ ne doy na rek bu ñuy bëgg a woor nga nga nga nga um fas yéene um bis bu bis biñ ne koor gi tàmbali na weer wi feeñ na nga fas yéene woor weeru koor wépp nga fas yéene koo woor loolu am nga yéen jooju loolu soo ko waxee rek loolu doy na la ci bis yi ci des yëpp dañoo sopp nag nga di ko yeesal guddi gu jot guddi gu jot rek nga fas yéene woor suba guddi gu jot nga fas yéene woor suba waaye soo ko defutoo it loolu du la wàññi mun a du wàññi ci koor gi dara loolu dañ ko sopp rek waaye boo boo amee yéene woor weer wi rek loolu doy na la ci ci ci ci ci koor gi ñaareelu farata mooy nag nga nga wattandiku lépp loo xam ne luy tax a dog la ci lekk ak naan ak jaxasoo ak lépp loo xam ne luy lu ñuy wax ne ku ko def sa koor dog nga wattandiku loola yëpp nga nga wattandiku wa kulu washrabu xataa yatabayana lakum alxaytul ab xaytul abyad min alxaytil aswad min alfajr kon ñaar yooyu képp mooy faratay koor yéene def ko ci guddi gi wala nga def ko ci njëlbeenu koor gi te fas yéene woor weer wi yépp saa boo ko defee bu dul boo dogut koor gi rek nga xam ne am na loola dog ba nga wacc ay bis yoo xam ne wóoroo ko bu rek doo mën ko boo ko yéesalu ti dul wàññi dara waaye saa boo xamee ne dog nga koor gi nag ngir ngànt loola jot moo xam jigéen ñi la wala góor ñi la waaye dog nga koor gi ngir ngànt loola jot su boobaa nag da ngay yeesalaat yéene ji booy tàmbaliwaat woor booy tàmbaliwaat koor gi da ngay yeesalaat yéene ji waaye bu dul loolu rek boo yéene ci njalbeen gi rek man naa mën naa mën naa mën naa mën na yàlla suñu borom tabaraka wa taala dana la ko nangul ba ca des mooy sunna yi sunnay koor mooy yi nga xam ne moom mën naa bañ a yàqu koor gi waaye dana ko rafetal dana yokk yool bi ba ci jëkk mooy gaaw a dog saa bu jant bi fenke soyee nga dog bu ñu gaaw a dog nag jubluñ ci gaatu gaatu gaatu gi gi ñu bari defee mooy gaaw a dog gannaaw bu jant bi soyee gannaaw bu jant bi soyee bu jant bi soyee daal bu ci teg dara demal dog am na ñoo xam ne dañ naan damay julli ba noppi wala damay nag te dog dag lañ ci jublu mooy mos dara rek mos dara rek la ci gën nag mooy tàndarma waaye mos dara rek bala ngaa julli loolu moom lañ sopp ci e, e, ci ci gaaw a dog gi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne laa yazaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitr nit ñi duñ deñ di nekk ci aw yiw mukk fii ak ñi ngi gaaw a dog naka doon tam yeex a xadd wala xadd te yeexe ko xadd ci boppam dafa nekk ci yi nga xam ne sunna yi koor la waaye yeexe xadd def ko ci fajar di bëgg a jot loolu it bokk na ci yi nga xam ne ay sunna koor la tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka yonente bi ko wax da ngeen da ngeen xadd ndax xadd barkee ngi ci barkeb saayir ak barkeb baatin waxaat nañ ne laa tasaalu ummati bi xeyrin maa axaru suxuur nit ñi duñ dem di nekk di nekk ci aw yiw mukk fii ak ñi ngi yeex a xadd yeex a xadd nga xëy da nga koy def ci fii xaaj bu mujj bi ci eh, ci eh, guddi gi ci nga koy def ñetteel ba mooy fegal fekk saw làmmiñ ci ak say cër yépp ci lépp loo xam ne lu warul la lu araam la wala luñ sib fekk ca saw fekk ca làmmiñ fas doo ko def ndax koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na koor am pakk la day dox sa diggante ak def lu araam day dox sa diggante ak sawara mu ne ku ko woor na nga sa say loxo sàmm say cër sàmm sa lépp ba doo ca def lenn loo xam ne lu araam la wala lu ñu sib la man lam yada qawla walamal bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu nee na ko bàyyiwul waxi caaxaan bàyyiwoo jëfi caaxaan ci biir koor yàlla amul soxla ci bàyyi ga nga bàyyi lekk ak bàyyi ga nga mën naan sunu borom tabaraka wa taala amu ci soxla loolu la sunu sëriñ eh, cheikhul xadim radiallahu taala anhu da wax ci masalikul jinaan ama siyaamu fantabih lam yanxasir fi adamil akli faqat laa taxtarir nee na koor du bàyyi lekk ak naan rek de bu leen waru ci loolu bayi lekk bàyyi naan dong loolu kooru sharia la waaye nag koor ëpp na loolu ëmb na lu ëpp loolu mu ne ko man gan gan koor mooy gi gën gi gën ci koor yi mu ne fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi mooy nga bàyyi lépp lépp lu araam ci say loxo ci sa gis ci sa dégg ci say tànk ci say loxo lépp nga aar ko ba doo ci def lenn lu araam ci biir koor ak budul koor tam waaw ak budul koor kon yooyu mooy ay mbir ak beneen koor gi nga xam ne mooy kooru xel boo fexee sax boo xuma kooral say cër waaye da ngay waral sam xel ba doo ci xalaat lu dul noona loolu nag mooy koor ga gën a kawe nag goo xam ne goo boo defee gu njëkk gi rek dana la dimbali ci ñaareel bi boo defee ñaareel bi dana la dimbali ci ñetteel bi yàlla na suñu borom tabaraka wa taala dimbale ci nu woor nu fekkee koor gi mu fekk nu fi nu woor ko ni ko war a wooree te buñ ko wooree ni ko war a wooree mu nangul nu ko te bañ am àjjana ji nga xam ne moom lañ digee ci koor suñu borom tabaraka wa taala yàlla ko defal te bàyyi fi suñu kilifa gi lool ba yàgg fi ba nu ànd ak moom mu mottali liggéeyam bi eh, sombaat ay liggéey ñu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Oh!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 الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا وأخبرنا على لسان نبيه أن المتبعين لسنته عند ذهاب الدين وفساد أمته يضاعف لهم لهم الثواب تضعيفا نشهد أنه الله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا ومن علينا إذ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 التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه اعتقادا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار لكم fastacidduu lilmawti faqad adallakum wa qad qaala sallallahu alayhi wa sallama aksiruu min dikri haadimi lladaat xataa yanqatica rukuunukum ilayha alaa wa innakum fi yowmi amalin laa xisaaba fii alaa wa innakum tuusikuuna fi yowmi xisaabin laa amala fii wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda allah falaa taxurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم وما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروه على نعم لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي جميع ما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 الله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 كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله Allahu akbar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 allahu akbar asalaamaaleykum.